association des femmes de valeur ñoo ñëwoon fii tey ci hôpital Albert Royer bu Fann ñëw en tant que mère de famille en tant que jaboot en tant que jullit ñëw ci barke weeru koor gi jàppale si xale yi feebar ginnaaw bi ñu leen ko waxee ci suñu conférence bu mujj ne woon nañ leen dinañ teewee si ci suñu doole ñëw jàppale ci niñ ko mënee ci lañ gëstu laajte lan mooy demande bi lan la ñu soxla ñu jox ñu listu xale yoo xam ne macha allah soxla opération boobu ba tey tëdd tawat kenn mënu leen a faj bi ñu ñëwee jël nañ liste bi tuwaat fakkaale macha allah fayal nañu xale yëpp bu ko defee ci semaine bi dinañ mën a opérer ñu leen di ñaanal wér topp ci ñu leen di ñaanal yàlla yëkkati leen wér topp ci loolu lañ fi ut woon tey biñ fi ñëwee itam visité jàngee nañ fi lu bëri te gistu nañu gëstu boo xam ne bu ëllëgee bëgg nañu ñëwaat defaat fi leneen mu doon partenariat entre ñun ak ñoom xale yi ñu faj mat nañu 11 docteur baa ngi nii taxaw fay nañu ba pare somme bi mu ngi ci à peu million 800 et quelques fajal nañ leen ba pare euh, fayal nañ leen te dinañ leen opérer balaa moo yàgg bu soobee yàlla.